te diine moo takke jaam bi ak boromam moo tax lépp lu yitteel diine sëñ Tuubaa day yittewoo loola te diine nag dafa yittewoo xam-xam sëñ Tuubaa yittewoo gi mu yittewoo diine noon yi sax dañ koo seere fii ne tuuma yiñ ko tuumaal li muy bari bari amul benn tuuma bu boo xam ne tuumaal lañ ko ko lu koy génn ci diine ñoom ñëpp lañu seere ba ci noon yi mooy diine jaaraloon na ko bakkaram tuuma yëpp moom woyefal diine mosu cee bokk te arab nag day wax ne alxaqu ma shahidat bihil aadaa noonu moom lu mu seere rek dëgg la am na ci tubaab yi koo xam ne ba mu defee rapport di wax sëñ tubaab programme bisam daf ne bu xëyee suba ba tisbaar ba tisbaar day jàng alquran tisbaar ba takkusaan day bind mooy tawaalif yi mu ne tàkkusaan ba tisbaar ba tàkkusaan day bind tàkkusaan ba timis day beru di xalaat boromam timis ba bët set nag day julli loolu am noonu moo ko seere ci sëriñ bi gis nga commandant ba mu nekkoon njaareem la ñu andi woon ko jaaree 1913 mu am fa ñaari at di nattu sëriñ bi ba xam li mu nekk lan la nga xam ne buy ñëw ci kër gi du yëglu waxtu wane day ñëw te lu dox digganteem ak sëñ bi bu dee sàng dana ko dajji bu dee sàkket dana ko xotti ngir bëgg a bett sëriñ bi ba xam li mu nekk lu mu doon sëñ Bachirou bind na wax ne ba mu ba mu fa amee ñaari at la def rapport moo it wax na ci wax ca rapport ba ne nattu na sëriñ bi moom qaala fa waaye fa lam yajid minhu illa rajulan kulluhu diyanatun islamiya moom daal gisul ci moom lu dul jëmm la joo xam ne léppam diine la moom sëñ Tuubaa loolu noonu seera na ko diine nag moo tax nag sëñ Tuubaa yitte woo xam-xam ndax diine dafa yitte woo xam-xam lool bu ñu wax diine nag mooy lislaam am na diine yu jiitu lislaam waaye dafa mel ne sunu boroom dafa jël diine yépp tënk leen ci biir lislaam dafa mel ne loolu mooy xikma xikma bi nekkoon ci guddi rañaan ga yonent bi dafa dajeeg yonent yépp ci Palestine baytul maqdis jiite leen génn julli génn julli ñu bokk julli day mel ne xikma bi ci nekk mooy keroog la diine yépp dugg ci biir lislaam moom la sëñ bi nettali ca muqaddamaat muy daje gam fa daje woon ak yonant yi jiite leen génn julli la anta imaamu rusuli qad jaa annahum talaaqawka fi l israai wal kullu qad salla lislaam xam-xam da cee am solo lool loolu moom la nga cay la koy jëkk firndeel mooy aaya ji jëkk wàcc ci alquran aaya ji jëkk wàcc alquran ci xam-xam la jëm mooy iqra amul sunu borom jëkkute wàcc ci alquran lan lu dul jàngal walla yeneen yaa ngi fi waaye day mel ne nit ki bu xasee am xam-xam rek moo koy ubbil buntu yeneen yim war a def yépp mu xam ko yim war a bàyyi mu xam ko yittewoo gi diine yittewoo xam-xam tax na alquran ji nga xam ne mooy ndey diine boroom xam-xam yi seetlu ñu ne baatub xam-xam rek ak yan ca xare mustaqaat yi ñëw na ci alquran lu mat juróom-ñaar téeméeri yoon ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent lu toll noonu baatub xam-xam ñëw na ko ci alquran ñu ne ñu ne kon daal day mel ne bu ñu séddale woon téeméeri saar yee fukk ak ñeent bu ñu leen séddale woon day mel na saar wone sunu boroom tudd na ci xam-xam juróom-ñaari yoon kon ku ne ku ne xam na ne xam-xam lu am solo la ci diine xam-xam lu munta ñàkk la ci doomu aadama lu munta ñàkk la ndax mooy yéwénal dunduk àddunaam di yéwénal dunduk àllaaxiraam sëñ Muntaxa dana ko wax dafa dafa wax ne lekk ak naan ni nga xam ne munta ñàkk day mel na xam-xam xam-xam munta ñàkk mooy yéwénal dunduk àllaaxiraam ndax ci lay xame li sunu borom diglee xam lim tere ba man koo jëfi man a bàyyi lay moo tax suñu borom ne boroom xam-xam yi rek ñoo ko ragal ndax ñoo xam fañ war a jaar innama yaxsha allaha min ibadihil ulama sunu boroom woote boo demee ci alquran dafa woote ci xam-xam dafa waxoon jullit ñi ne leen dëkk bu ne bu ñépp munta jàngi seen diine itam na am ñu dem jàngi seen diine ba xam ko bu ñu delsee jàngal ko ñi ci des wa ma kaana almuminuuna li yanfiru kaafatan fa lawla nafara min kulli firqatin minhum taifatun li yatafaqahu fi ddiini wa li yundiru qawmahum ida rajau ilayhim laallahum yaxdaruun kon loolu itam di wane xam-xam nu mu amee solo am na aaya ci alquran yu bari yoo xam ne boroom xam-xam yi dañoo gis ne nañ koy tafsir ñoom ci xam-xam la jëm ci xam-xam la jëm lu mel ne li sunu boroom wax ne atiu llaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum topp leen yàlla topp yonante bi te topp ñi amee seeni mbir ñu ne ñooñu nag ñooy boroom xam-xam yi boroom xam-xam yi ba tey fii sunu boroom di waxe ñaan gu siiw googu rabbana atina fi dunya xasana wa fi l xasana ñu ne xasana ci dunya mooy al ilm wal ibada xam-xam ak jaamu yàlla kon loolu it di wane xam-xam ni mu amee solo sunu boroom wax na ci alquran di wane ne boroom xam-xam yeeg ñi amul xam-xam mënuñoo yam mënuñoo yam loolu di wane xam-xam nu mu amee solo nu mu kawee def ci ab laaj boo xam ne laaju inkaara inkaar la qul hal yastawi alladina yaalamuuna walladina laa yaalamuun ay wane na rek ñaar ñooñu mënuñoo yam moo tax imaamu Shafii boroom xam-xam bu mag boobu rahimahullah wa radiya an wax na ne nit ki lu mu màgg-màgg ci bëti nit ñi bu fekkee amul xam-xam bis dana ñëw rek mu tuuti mu tuuti ndax danañ soxla xam-xam te fekk amul xam-xam bu mu génne man waaye nit lu mu tuuti tuuti ci bëti nit ñi bis mën naa ñëw rek mu mage lool xam-xam moo ko yëkkati moo tax mu ne wa inna kabira alqawmi la ilma indahu saxirun ida ltafat alayhi jaxaafilu wa inna saxira in kaana aaliman kabirun ida ruddat ilayhi almaxaafilu xam-xam sunu borom wana na ne sunu boroom bam bindee sunu maam aadam alayhi salaam fekkoon na mu bind yeneeni di malaayika ñoo xam ne jaamu seen boroom rek mooy seen yitte amuñu benn liggéey seenug lekk ak seenug naan sax mooy jaamu yàlla gis nga sëñ bi na mu koy na muy misaale seenug lekk ak seenug naan ca tasawudu sixaar tasbiixu rabbihim huwa sharaabu taqdisuhu taamu la tartabu kon jaamu yàlla ci dañuy lekk ci dañuy naan waaye ànd ak loolu lépp mbindi aadam dafa leen digal na leen sujjóodal leen ko sujjóodal leen ko waaye xam la na ci alquran day mel ne xam-xam bi mu def ci moom xam-xam li mu ko xamal te ñoom xama xamalu leen ko loolu la leen féete kaw ba ñu war koo sujjootal sujjootu wormaal loolu bu ñu dela ci alquran da nga ko ca gis ba mu xamalee aadama lam ko xamal laaj malaaka yi xamuñ ca dara mu ni aadama jàngal leen aadama jàngal leen ko ñu mel ne ci lañ ci lañ nangu nag ngëneelul aadama ci ñoom te loolu dafa mel na ci xam-xam la ko sunu borom teg moom lay wax wa allama aadama lasmaa kullaha summa aradahum ala almalaikati fa qaala ambi'uuni bi asmaai haula in kuntum saadiqin qaalu subhaanaka laa ilma lana illa maa allamtana innaka anta alalimu alxakim qaala ya aadamu anbi'hum bi asmaa'ihim fa lamma anba'ahum bi asmaa'ihim qaala alama aqul lakum inni a'lamu ghayba as-samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduuna wa ma kuntum taktumuun kon war na ne nag ci xam-xam la aadama féetee kaw ba ñu ba mu sujjotloo malaayika yi ci moom loolu yonent bi firndeel na ko nee na xayrukum xayrukum man taallama alqur'ana wa allama te alqur'an mooy ndey xam-xam nee na ki gën ci yéen seen tànneef mooy ki jàng alquran te mooy jàng xam-xam ba xam ko ba noppi di ko di ko di ko xamle gisuñ fenn fu sunu borom digale yonante bi mu ñaan boromam mu dolli ko lenn lu dul xam-xam wa qul rabbi zidni ilma xam-xam rek la ko wax ne ko ñaanal sa boroom mu dolli ko kay kon day mel ne yeneen yi ci des yépp yonante bi doylu na ca waaye xam-xam la kenn dul doylu ba tax mu borom ne ko wa qul rabbi zidni ilma xam-xam mooy la yonente bi di ndoonal yonente ya sallallahu alayhi wa salaatu wa salaam kenn ci saxaaba yi sayiduna abu dar am na bis mu ne jullit ñi dem leen ca jàkka ja ña nga fay séddale la yonente bi ña nga ko fay séddale ñépp defe na lu nekk la daw wuti jàkka ja bañ demee ab diir ñoom ñëpp ñu dellusi ci moom ne ko lang ñu waxoon lu mu doon mu ne leen lu ngeen fekk ca jàkka ja ñu ne ko xanaa jataay xam-xam ñuy jàngale ay groupe daal yu yuy jàng ñii di jàng tafsir ñii di ñii di jàng leneen moom lañ fa fekk mun na leen ndono laa ngi noonu dem leen jël ci seenub cër kon mooy tekki ne yonent bi ndono mooy xam-xam naka noonu yonent yëpp moo tax yonent bi waxoon ne al ulamaau warasatul ambiya xam-xam nag noonu mu amee solo kon lu munta ñàkk la moo tax yonent bi ne sàkku xam-xam farata ci bépp jullit talabul ilmi faridatun ala kulli muslim loolu li koy tekki mooy sunu boroom dafa wax ci alquran ne nit ak jinde jinne binduma leen binduma leen lu dul ñu jaamu ma wa maa xalaqatul jinna wal insa li yaabuduun jaamu yàlla nag mënu mënoo xam ni ngay jaamoo yàlla dul jaare ko ci xam-xam xam-xam rek moo la mën a xamal melo wi ngay jaamoo sa borom kon loolu buñ ci sukkandik sukkandikoo dana leer nàññi xam-xam ni mu amee solo li yonente bi ne xam-xam munta ñàkk da nga ko da ko déggee foofu moo tax mu ne sàkku xam-xam farata la ci bépp jullit te ci xam-xamu usul ci xam-xamu usul lépp loo xam ne lépp loo xam ne moo lay dimbali ci farata mooy tax nga man jëfe farata loolu farata lañ koy jàppe ci usul ci misaal fi mu ne bu fekkoon bala ngaa mën a xëy woor fawoo nga naan nga xëy nga jóg ci njël ci njël naan potum ndox naan potum ndox boobu farata lay doon ci yow ndax moo lay tax a mën a jëfe farata ji mooy koor gi ginnaaw nag jaamu yàlla farata la ci nun te ci xam-xam lañ mën a jaare mën a jaamu yàlla moo tax yonent bi ne talabul ilmi faridatun ala kulli muslim doomu aadama kon munta munta wéy te jàngul diineem loolu nag nekk sunu boroom dimbali na ko ci bu waxee ci alquran ne moo leen génne fa mu leen bind génn leen xamu leen dara la ca teg xamu leen dara wallahu axrajakum min butuni ummahatikum la taalamuuna shay'a waaye lam ca teg mooy dafa wane ne may na leen jumtukaay yu ngeen mën a jànge ba am xam ba xam dara xamu leen dara du mu leen génne waaye jox na leen jumtukaay yu ngeen mën a jaar ba mën a xam dara te mooy ab dégg akub gis ak am xel moo tax mu teg ca wa jaala lakum samaa wala absaara wala afidata laallakum tashkuruun yonente bi waxoon na ne moom mi yàlla yónni woon mooy leeral nit ñi seen diine ji ci alquran ak fa muy firi alquran mooy ahadis yi dafa waxoon ñamuy waxal ne leen lépp lu ngeen déggee ci man lu ngeen ca mën a jàllale lu mu tuuti tuuti rek na ngeen ko jàllale ba nit ñi jot ci balligu anni walaw aaya yonente bi ne woon na képp ku yàlla namm ci moom aw yiw dana ko déggloo diineem dana ko déggloo diineem diineem man yuridillahu bihi xayran yufaqihu fi diin am na ñett yu yum waxoon ne ñett yum waxoon ne bu nit ki faatoo léppam day dog dara du ko fekk fa mu nekk ca barzax lu dul ñett ñetti bariwut waaye boole woon na ca xam-xam bu mu fi bàyyi ñu koy jëriñoo ida maata bnu aadam inqataa amaluhu illa min bokk na ci aw bi yonente bi ne won na wane solo xam-xam ak jàllale ko ni mu amee solo nee na gindi kenn nit kenn nit gindi koo ci yow rek nee na moo gën lépp lu luy alal alal lu mu cher cher loolu moo ko gën ci nit ki lay la ay yahdiya allahu bika rajulan waaxidan xayrun laka min xumri dem na ba ci solos xam-xam ba àgg ci wax ne kañaan day bu fekkoonte ne lu lu dagan la dara nekku ci aayut ñaar yi rekk ci lay ñàkk aaye ñaar yi ñaar yi ñaar benn ba mooy nit ku yàlla jox xam-xam mu di ko mu di ko xamle mas nañoo tudd ci moom ñaari nit moom yonent bi ñaar kenn ki dafa bari xam-xam lool bari xam-xam lool waaye di jëfe xam-xamam kenn ki amul xam-xam waaye mi ngi góor góorlu ci jaamu yàlla kem kattanam bañ leen tuddoo di leen gam-gam le yonent bi ne leen fadlul aalimi ala al aabidi ka fadli boroom xam-xam ni mu féete kaw kiy jaamu yàlla rek te amul xam-xam mooy ni ma féetee kaw ki gën a ñàkk solo ci yéen te moom ci ëpp solo ci ci jullit ñi moo ko féete kaw kon bu ne ki gën a ñàkk solo ci yéen kon loolu mooy ngëneelul xam-xam rek la bëgg la bëgg a wane moo tax waykat ba ne fa inna faqihan waaxidan mutawarrian ashaddu ala shaytaani min ëlfi aabidi nee na benn boroom xam-xam bu sàmm di dund xam-xamam mu moom la seytaane gën a gën a gën a gën a ragal moo gën a tar ci seytaane junni jaamu ko te yàlla yoo xam ne amuñu xam-xam ndax moom lam la la lay génn ci moom ci boroomi xam-xam ak ñuy jëfe seen diine loolu moo tax mu gën a tar ci seytaane jataay xam-xam yi jóg di ko jàngi ak jóg di ko déglu si fu mel ne jataay yu mel nii amoon na solo lool am na solo lool moo tax yenent bi ne woon na képp ku jóg soobu yoon jóg jëm ci barab te sàkku ji fa xam-xam dong tax laa jóg danañ la danañ ko yombalal yoon wa jëm aljanna man salaka tariqan tamit yaltamisu fihi ilman sahala allahu lahu tariqan ilal janna kon loolu itam danañ ci déggee xam-xam nu mu amee solo am na ci boroom xam-xam yi koo xam ne waxoon na ne képp ko dem ci jataayub xam-xam jataay yu mel nii dolli koo fa donte menn masala la menn masala nga dégg ko fa jàpp ko ci sa xol donte bi nga jógee da nga koo fàttewaat sax mu ne teewut yiwu kenn xamul lu mu toll ma ca kon loolu itam di wane solo xam-xam am na ci boroom xam-xam yi koo xam ne ba mu demee bay faatu dañ koo laaj ban yool nga gën a xemmeem ban yool mu ne ko xanaa dolli ku mel ni masala ci diine mu yool boobu laa gën a xemmeem te kooku boobu ma ngi wuy ji boroomam sayidna abu hurayra radiallahu anhu ci saxaaba yi la bokkoon di ki ëpp lu mu solo ay xadis yonent bi kon boroom xam-xam bu mag la woon waaye ne woon na toog benn jataay dolli ko fa dolli ko fa ci sama diine am fa lu ma xamee lu ma xamutoon moo ma gënal fanaanee dundal guddi gi ci ay julli kon ñoom ñu ñu ñu fonkoon xam-xam lañu xam-xam ci leen nit ñi di mën a xame seen boroom ci la ñu seen boroom ba xam fañu ko jaar ci xam-xam la ñu mën a jariñoo ci kéemtaanam yi kéemtaanam yi nga xam ne da ko wàccee ci xam-xam lañ ci mën a jariñoo ci xam-xam la doomu aadama yi mën a xamee ci lan lan moo tax yàlla bind ko lan moo tax mu bind ko indi ko ci kaw suuf ci xam-xam la ko mën a xamee ba man caa man caa nekk xam-xam ci la mën a xamee yoonu texeem yoonu texek addunaam ak texek àllaaxiram ba man caa jaar ci xam-xam kon la nit ki di mën a ràññee diggante dëgg ak lu dul dëgg xam-xam moo koy man gis nga sunu borom di wax ci alquran wa ma yastawi al-a'ma wal-basiru wala zulumatu wala zulumatu wala nuuru wala zillu wala alxaruur yooyu yëpp mu ne du ñu mu ne silmaxa silmaxa munta yem ak njàccaar silmaxa xol nag lay wax fa innaha la taama al absaar walakin taama al qulubu allati fi sudur mu ne mënuñoo yem lëndëm ak leer mënuñoo yem aljana ak sawara mënuñoo yem waaye loolu lépp doomu aadama ci xam-xam la ko mën a ràññee ba xam ko ci xam-xam la nit ki mën a jaar ba jariñoo njariñ yi yàlla def ci kaw suuf ci kaw suuf njariñ yu baree bari mu ngi ci kaw suuf nit ki ci xam-xamal maa jaare ba xam ko loolu la koy firndeel mooy ku ne dégg na na Sénégal pétrole pétrole feeñ na fi waaye fii na pétrole bi boo ko xaajoon fukki xaaj juróom-ñeenti xaaj yépp ñi ci biti tubaab yi ci biti ñoo koy jariñoo benn bi rek la ñuy jariñoo noonu lan moo ko indi xam-xam xam-xam moo indi loolu kon xam-xam ci la nit ki mën a jaari ba mën a jariñoo sax njariñ yàlla def ci kaw suuf xam-xam nag boo koy sàkku bu ca xeeb kenn noo mën a toll rek koo mën a dollikoo xam-xam demal dollikoo ci xam-xam donte yaa ko féete kaw alquran misaal na loolu gis nga sayyiduna Muusa fekke woon na sayiduna say sayiduna xudar mënees naa wax loolu fekke woon na ko ngir dolli ko ci moom xam-xam te Muusa yonante la waaye bokk ci juróomi yonante yi gën ulul azm ànd ak te xudar wuute nañ sax ci ak ak yonantam waaye fekki woon na ko ne ko alattabi ko alattabi uka ala an tuallimani mimma ullimta rushda kon loolu li muy tekki mooy xam-xam koo mën a jëriñoo xam-xam rek demal jëriñoo ci yonent bi nag wane woon na ne am na xam-xam bu am njariñ waaye am na xam-xam boo xam ne amul njariñ moo tax mu ne woon salullaha ilman nafia wa taawadu billahi min ilmin la yanfa ñaan leen yàlla xam-xam bu am njariñ te muslu ci yàlla nag xam-xam bu amul njariñ xam-xam bu am njariñ na mu amee solo lim la mën jariñe xam-xam bu am bu amul njariñ noonu la noonu la mën a lore loolu bu ñu delloo ci mbindum sëñ tubaa sëñ tubaa danañu leeral xadis boobu wax na ne fa laysa kullul ilmi nafxan waxtiwaa du xam-xam yépp am njariñ nag nee na xam boo xam ne nit ki da koy sàkku ngir bëgg aw tàgg aw tàgg ñu ko yëkkatee ka tagg sëñ tubaa nee na xam-xam boobu amul njariñ nee na xam-xam boo xam nit ki da koy sàkku ngir nekk mufti wala yi di àtte wala ñu lay laaj ngay tontu nee na xam-xam boobu amul njariñ nee na xam-xam bi nga xam ne nit ki da koo sàkku ngir ak maasam yëkkati ko mel na ku koy jaamu di ko fonk nee na xam boobu ki ko sàkku ngir loolu amul njëriñ nee na xam-xam boo xam ne nit da koy sàkku ngir def ko fiir ak fiir ngir man caa dajale alal alali àdduna sëñ Tuubaa nee na xam-xam boobu amul njariñ moo tax mu ne fa kullu man li hadihi al ashyaai taallama al uluma bi ictinaa'i wa lam yatub qabla al mamaati wal kibar mudaarikan maa faatahu waqta alsigar fala lahu yowma alxisaabi yowma alsuaali walxisaab siwa wabalin wa malaamin wa adab nee na képp koo xam ne yii mu wax moo la taxa sàkku ji xam-xam ëllëg musiba rek nga fay dajal boo demee ndax yàlla taxutoon ngay sàkku xam-xam ba li waral loolu mooy li anna ilmahu yasiru xujja gadan alayhi faxsha tilka alxujja nee na xam dafa war a doon saw lay saw lay war a doon waaye boo boo sàkkoo xam-xam ngir yii day doon aw lay ci sa kaw ci sa kaw kon loolu itam kon loolu xam yooyu amul njariñ kon kon musiba lay jur moo tax yonent bi waxoon loolu sëñ Tuubaa nag indil ñu ko dindi ba nga mën koo dindi tàggoog sikk yooyu ayib yi ayib yooyu ba mën a am xol bu sell am na sikki biir ni mu amee bàkkaari biti ne la amee bàkkaari biir moo tax sunu borom ne ci alquran wadaaru waahiral ithmi wa batina moytu leen bàkkaari biti yeeg bàkkaari biir yi sëñ Tuubaa ne bi am njariñ mooy bu nga xam ne day dalay génneel sikku kañaan génneel la ko ba mu set génneel la sikku su rëy génneel la sikku su mbañeel mbañ nit jekki-jekki nit soof la nga bañ ko te mënoo indi wenn lay woo ko teg da lay génneel sikku su naw sa bopp ak naw say jëf indil la nag indil la mën a muñ indi la am njariñ indil la lawet indi la looy def yàlla tax indil la kersa indil la ngay laabiire jullit yi lépp loo xam ne xam nga ne njariñul jullit ñi la nga jéem di leen ko laabiire sa kem kàttante yàlla tax ci gàttal mu ne wali taxalluqin bi xulqin xasani fi sirr wal jahri bi xayri ihani xam bi am njëriñ mooy boo xam ne dalay may jikko ju rafet mu ne xam-xam bi am njariñ ba tey mooy boo xam ne day fàggul nit ki ragal yàlla da koy wommat jëmee ko ci ko ragal yàlla wommat ko jëmee ko ci toroxlu muy wàcce boppam wommat ko jëmee ko ci dëddu àdduna bari teggin ak toroxlul boroom ak aajo woo jëm ci moom di laabal xolam di ko notal bakkanam di ko notal bakkanam di ko musal ci mooy yàlla mu ne fal ilmu in lam yuxdi shaxsan lil huda fa innahu yajurruhu ila rada nee na xam-xam bu la wommatul jëme la ci jub day dalay wommat jëme la ci alkande waaye du la bàyyi ci diggante bi kon foofu nag fi ngay déggee la yonente bi neex woon ñaan leen yàlla xam-xam bu am njariñ te muslu ci yàlla xam-xam bu amul njariñ ndax sañ Tuubaa nee na xam-xam bu la gindiwul rek dugal la ci alkane wala ayaatu billahi ni mu amee solo moo tax yonente bi ne woon malaaka yi sax malaaka yi dañuy tàdd tàdd dañuy wàccel seeni laaf bu mu gisee kuy sàkku xam-xam innal malaaika la malaaikata la tadau ajnihataha li taalibil ilmi ridan bi ma ngir kontaan gu ñu kontaan ca la muy def di sàkku xam-xam malaaka yi suñu borom ne woon na jaaxilal malaikati rusulan uli uli ajnihatin dañoo ami laaf seen laaf yooyu nag nee na dañ koy wàcceel boroom xam-xam mel na rek kilifa gu jóge woon fii di romb di romb nun kenn ku ne defarwaat ba nga say tànk ba mu jàll noonu nag la ñuy misaale ni malaayika yi di defal buñ gisee kuy sàkku xam-xam xam-xam nag am na yoo xam ne furudul ayaan la faratala ci kenn ku nekk mu jàng ba xam attey diineem attey diineem lu mel ne attey laab moo ci jiitu ndax lislaam gëm yàlla boog jàllee julli ca gën a màgg te julli munta wér te laab gu mat amut moo tax téere fiq yi ngay gis ñuy jëkkee ñuy jëkkee laab sëñ Tuba nee na araam na ci mépp mu kàllaf muy song genn jaamu yàlla te jëkku jàng ba xam la ca yàlla atte nee na loolu moom moo moo ko waxal boppam mu jël engagement wax ko qultu wa qad xarama rabbuna ala kulli mukallafin ala ma nuqida filan bi gayri ilmi xukmi lsharci fiihi hada nassu dalilun qat'i kon sëñ Tuba loolu la loolu la loolu la la leeral ci hadis boobu leeral ko ci xam moom nag nan la nan la dunde xam moom sëñ nan la ko dunde bi dafa feeñ ci bii almiya moom li ñuy wax doomu daara doomu daara la ndax ci dafa fekk ay waajuram ak i maamam di nite xam-xam di nite xam-xam maam Mor Anta Sali mi dafa laxasi woon diggante Kajoor ak Njaambur ba Saalum jàng jàngi xam-xam jàng ba giiju ci xam-xam ñëw ubbi daara ubbi daara di jàngale ba daaraam wax nañu dañ koy misaal lu mel na jaamia la woon université ba boo xam ne matière yëpp wala yu bari dañ ko fay jàngale xam-xam Maamoroon Tasali buñ delloo ci xasida gi sëñ Moussa Ka taalif tudde ko miraatu ulil absar dana fay misaal xam-xamam bu bari ma nga naan fa huwa cheykhun aalimu daqaiqi bayna sharaii maa alxaqaiqi wa naxwi wal lugati wal bayaani wal fiqhi wal xadiisi wal maani ci ci gàttal Maam Mor Anta ku géeju woon la ci fànni xam-xam yépp Maam Asta Waalo nga xam ne mooy waajuru Soxna Jaara moom it daara la yoroon di jàngale di boroom xam-xam la woon lool di jàngale xam-xam moom ba tey sëñ Moussa wax na ca xasida ga di misaal Soxna sa fóori la da yére ya di tërëral donga ya mboolem téere ya foofu la sëñ tubaa feeñee sëñ tubaa foofu la feeñe kon bu waxee xam jooju mu waxoon du bett kenn bu waxee ne walastu raadiya xayril ilmi wa diini lu dul xam-xam ak diine uuma ca soxla du ma dox du ma dox jëm ca kon bu waxee loolu ñépp xam nañ ne yanano maanaa ndax lii mu fekk ay wajuram sëñ tubaa ci xam-xam dafa mel ne xam-xam moo dindi sikki sàkka ci ji nekkoon ci ay waajuram ay kilifaam dañoo demoon ba am sikki sàkka ci ndax xel mi dara sikku ci ndax woote gu mu woote wuute woon ak ay ay ak maasam ci zahir ba muy doon tub tànk dalagul jàng ndax du fo du bëri du xuloo du xeex kenn du xam lu ko naqari te du jaxasoog ñoom fu mu toll day beru melowoo mu amee woon ci jamonoy tuut tànk nag te miinuñ ko ci maasam loolu jaaxaloon na ay kilifaam ba ñuy sikki sàkka ci insaani yam ndax xel mi dara si ko ci waaye ba mu duggee ca daara ja nag dal jàng tàmbalee jàng xam-xam alquran tàmbali ak xam-xam yitte ja mu jox njàng ma moo leen xamal ne ndekekat xel mi dara si ko ci waaye sunu borom moo def ci moom ay kiimaanam kon ci xam-xam xam-xam mooy dig wi dox diggante sikki sàkk jañ amoon ci moom léegi nag am nañu yàqin ci moom xam ne sunu boroom moo def ci moom kiimaanam sëñ Tuubaa xeroon lool ci jàng ba mu tollee ci jàng xeroon lool ci xam sunu boroom da koo dimbalee woon xel mu neex muy ku mënoon a mokkal boo delloo ci mbindum sëñ Mat Lamin ak sëñ Bachiru danañ ñoom ñëpp ñi ngi ñi ngi ñi ngi tudd mën mokkalu mokkaluk sëñ tubaa jamono yi muy jàng sëñ sëñ Bachir wax na ci minanul baaxil xadim ne sëñ ma sàmba ak sëñ Modou Moustapha ku ci ne nattali na ko ne ko sëñ tubaa nee na leen ba muy jàng nusuus yu bari yax yu bari yoo xam ne weesar la woon yu naqaree mokkal nee na da leen a mokkaloon moom ci xeeti fànn yu bokkut fànnu tawxiid fiq tasawuf ba di ba ci àddina yi xeeti ñaan yi dalaa'ilul xayraat yu yëpp nee na da koo mokkaloon sëñ Tuubaa da koo mokkaloon sëñ Basiiru ne Cheikhul Xalil sax de li muy rëy rëy mel na ne mokkaloon na ko donte ñoom tudduñ ko bañ may nettali loolu waaye ndax daana toog di ci waxtaan di juqati ci ay masala si juqati ci ay barab yu bokkut loo xam ne ku ko mokkalul ku ko mokkalul rek mënoo ko kon man jàpp na ne mokkaloon na téere boobu moom la mag ñi daa wax la wal ak saan yi kon sëñ Tuubaa kéemtaan la woon ci mokkal bu ñu waxee mokkal yooyu nag alquran ak xadis moom kenn waxaale wu ko ndax moom moo seen moo doon seen ndab sëñ Tuubaa ndabul alquran la woon di woon ndawul ndabul ndabul xadis di ko sonn ci xam-xam daana liggéeyal wayu juróom maam Mor mooy wayu juróom waaye moo ko daan jàngal moo tax sëñ Bachir di ko tudde a cheikhul walid mooy sëriñ bi mooy jàngale waaye mooy way jur yi Sëñ Tuubaa di ko liggéeyal ngir sàkk ko ci moom ñaari barke barkeeb jur waaye barkeeb sëriñ bi lay jàngal barkeeb xam-xam daana ko liggéeyal lu mu am jox ko ba nee na mamaronta sali daana mujj bu gisee ci kër gi eh, alal lu mën a doon rek buñ nee ko maa ko moom da koy wóor na ci moom ci moom la jëm si ndax xam na ne lu ma am jox ko nee na booba bokk na ca lam ci jublu woon sàkk barkeb xam-xam dafay loolu ku ne xam na ne sunu borom defal na ko ko sëñ Tuubaa da ko yittewoo woon jumtukaayu xam-xam mooy téere téere da ko yitteeloon lool ba mu tolloo ci jàng amul lum jëndab téere sax daana sonn ci amub téere am na jamono yi ñuy nekk Saalum jamono jihaati Mabaja téere bi mu njëkk am fa la ko amee nettali na wax ne nam ko amee mooy da koo gis ak benn naar mu koy jaay te amul lum ko jënde nee na ma ne ko nañ dem ngir sabab lu ji lu mën a jënde téere bi ndax moom nee na bu masaan a am yitte du ko laaj kenn day génn rek génn rek di ko di ko di ko taataan ngir suñu borom may ko ko waaye du ko laaj kenn ndax bëggu la sonal kenn nee na ñu ànd dem ci benn koo xam ne dongab baayam la dongab Maam Mor Anta Sali koo xam ne ab commerçant la nee na ca moom la dem ngir xay na mu man man faa amee lum jënd téere bi nee na ba mu demee nag daanaka mbubbum donga la sol mbubb mbubb mi mu sol mbubbum donga la nag ay sagar la nee na taalibe bàyyam di ko yedd kilifa doomu kilifa gu toll na yow nang yu mel noonu nee daa ji génni mel na mbubb mu rafet mu yees jox ma ne ma sol ko nee ma subbi sama ma sagar ya ma soloon ngir ngir rek maslaa sol mbuumoo ma waaye nag sànniwuma ko damaa dem ba ca yoon wa fa ñuy jaar ba ñu ñibbi ma ma làq ko fa na ba ñu demee ba tàggoo bay dem ma ñëw ba fa ma ko làqoon ma jël ko summi mbu mu yees moom mu ma joxoon solaat samay sagar ne naar bi doon jaay téere bi ndax mu mii mbubb mi jaral na la téere bi mu ne ma jaral na ma ko mu ne na ma jox ko ko jënde ko téere ba téere bi mu njëkk am nee na noonu la ko amee am na téere boo xam ne nam ko amee sax moo gën a metti ndax da ko soxla woon ñu ne ko diw di moo ko fi am waaye nee na ab baykat la nee na ñax ma da koo sonal day ba muy nar ba mu nar a booyal ba mu booyal loolu ku ko xamul mooy sunu borom bu wàcceem ndoxam buy saxal moom dana saxal li nga jiwoon waaye dana saxal maneen ñax ndax mbay mi nit ñi rek dañ ko taxut jóg nit ñi ci lañ waaye jur gi ci lañ gis nga fa nuxriju bihi zar'an taakulu minhu an'aamuhum soog ne waa anfusuhum jur gi sax la jiital jur gi lekk ci